bu ko defee dañuy jël kàddu gi jox ko sëriñ Cheikh moom sëriñ Mouhamadul Mountakha moom moo jiite jàngukaay bii nga xam ne moom moo nekk fii ci Daarul Minan di mahad di institut Cheikh Mouhamadul Bachir moom it muy def waar wu am solo ci wàllu jàng ak jàngale ci dëkk bi di Touba bu ko defee kon sëriñ Cheikh euh, mën ngaa ñëw jël kàddu gi incha allah balaay julli timis di jot bu ko defee buñ jullee timis ba pare Euh, ñaari kàddu rek moo ciy des bu ko defee yooyu yëpp incha allah danañ ko tënk ci nu mu gën a tënkoo rek bu ko defee mbooloo mi mën a teel a yeewi ko dellu ci itte yi incha allah kon sëriñ Cheikh bismillah bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi maa ngi doon nuyu bu bëree bëri di ko tàmbalee sama kilifa yi daanaka bu ñu waxee ba noppi moom xanaa dañuy jëfe ndigal rek waaye daanaka lu ñuy wax des fi xanaa di am mbégte rek ci teewe gi teewe bi ak déglu ñu déglu waxtaan yi mu am solo lool leeral ñu di eh, gën a am solo ci eh, tarbiya waaye nag tarbiya Seex Xadim bi eh, rawaate na nag lii nga xam ne noonu la ko Seex moom mun taxaa andi andi ba indiwaate mu yarab Serigne Touba ba rek ci daara ji kon li Serigne Ahmad ba day wax daal dafa day sëg kon daanaka ñun dañuy jëfe ndigal rek waaye daanaka lu ñuy wax moom kon daal duñ def lu sant rek di di ñaan gën a mën a jariñu ci waxtaan bi waaye yaakaar naa daal lu ma ci war a mën a dolli sax gis nga kon nag jërë leen jëf jotaay bi am na solo lool jotaay yi am na solo lool lool lool. waaw kon nag moom yàlla nañ ci yàlla gën a defal tawfeex gën cee jëriñ rek te kon nag jërë leen jëf saako mu la feere bi sax